mbokk yi dal leen ak jàmm F24 di les forces de la nation jamono ji nag taxaw nañ tamit ne dañu xeex ak président Macky Sall rawatina ci troisième mandat bi nga xamante ne nee waxtu wi moo ko tere nelaw moom président ak i jege ñaleem l'info yéen a kay xëy ñoo wax démb kañ Ousmane Sonko ñoom Aliou Sané ak ñëpp ñu bootoo ci kuréel googu nag ñoo ngi nag jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir wax nan la ñuy taxawee ngir xeex ak président Macky ci bëgg ñu jàppee projet troisième mandat te gis nañ ne président Macky ci tànk yooyu la nekk ci waxtu bu ñu toll nii l'indépendant yéen a kaay fa la desandi ne F24 itam loxo wi nga xamante ne président Macky Sall tàllal na leen ko ngir ñu dialogue loxo woon ñoom ne nañ duñu ko jël fii moom président Macky joxu leen ay assurance maanaam moom président Macky mu giñ ne troisième mandat gi ñuy moom du ca dem waaye itam détenu politique yi ñu moom président Macky Sall jamono ji ñoo ngi ci kaso te loxoom setu ci mu daal a ba jamono ji nag yore woo sa a bàyyi nga dellu si sa aafiya lii nag moom la ñu tënk ñoom waa F24 niki démb nag ba ñuy jaaxaaloog taskatu xibaar yi fa la waxee sax ne fukki fan ak ñaar ci weeru mai daañu def ak manifester gu rëy maanaam marche gu rëy ngir wane seen ñax ànd ci troisième candidature bu président Macky ki bokk ci F24 di Bougane Gueye Dany moom jàpp na leen nag tribune yéen a kaay ne président Macky Sall ak dialogue gi mu woote nag nee na benn sincérité lépp lu muy wut maanaam mooy pexe ngir lewal troisième candidature gi nga xamante ne moom président Macky Sall Bougane moo ko tere delaw moom Bougane moo ngi artu ne coalition bi mu jiitee di gëm sa bopp ne du musa nangu di dem dialogue boo xamante ne lañ fay waxtaanee du nekk njariñu askan wi waaye njariñuñ kenn la nit wala ñaar président Macky Sall mi woote dialogue bi nag moo nekk ci réew mi ko di jee ndax ne nañ jamono ji waa F24 ñoom ñëpp nag bank nañ seen i yoxo ne fii ak amuñu lañu leer ci bëgg-bëgg président wala sax moom président Macky Sall coppiwul doxalinam mu jox leen ay assurance ñoom dialogue boobu ne duñ duñ ca dem ëllëg ñaan ñi woon démb te jamono ji ngi ànd ba ëllëg boobu it mën nañ joxante loxo moo di Ousmane Sonko ak Mimi Touré ndax ñoom ñaar ci Walf Quotidien nee nañ dafa mel ni nag seen taxawaay ci troisième candidature président Macky Sall da leen a juboo lool ba ko ci nekk nag moo ngi xoolee bëtu ñuy rental sa morom ba soo mooy ëllëg ñoom ñaar seen ànd ci wàllum politique nag bu mu bett kenn Vox Populi fa la desandi ndax nee na noonu démb ñooy nekk xaritu tey ndax Mimi Touré ak Ousmane Sonko ñoo ngi wéy di jegeew ñoo ngi wéy di waxtaan ñoo ngi a maanaam moom gi bërëb taskatu xibaar yi moom seen bopp joxe xibaar yu wéer te wóor ñu ne ñu fii ci réew mi nag Sénégal mbir moomu dafa gasax ndax suñu xoolee ci classement bi ñu mujjee génnee ci atum 2022 Sénégal mi nekkoon ci 73e na li leen ko waral mooy topp gi ñuy topp ñi tas xibaar di leen dóor yi di leen jàpp di leen tëj bokk na ci li tax Sénégal ñàkk place yu bari yooyu lee enquête yéenekaay xëy yoo wax naan ni ki démb nag jàpp ne liberté goog gu ñuy wax ci wàllum taskatu xibaar yi nag dara abu ci ndax suñu xoolee ñun taskatu xibaar yi ñoo ngi fitnaal di ñu dóori lacrymogène di ñu tëj di ñu agressé weccet bu nekk rek ay nit ñoo ngi koy yëkkati di ko teg ci kaw taskatu xibaar le mandat yéen kay xëy wax naan quatrième pouvoir maanaam presse bi jamono ji nag moo ngi otage maanaam moom boppam ki ko waroon te may ko mu waroon di génnee xibaar yu wër te wóor te dara di ko ci fekk fii ci réew mi nag mbir ma daa gasax ba àgg ci lool te li koy firnde mooy classement bu ñu mujjee génnee Sénégal ñàkk ca fanweeri place place itam nekkul woon kaso directeur de publication bu site d'information Kéwoulo di Babacar Touré moom nag mën naa santat yàlla bu baax a baax ndax jamono yii nag may nañ ko bàyyum ndëkkandikoo maanaam mën na dellu këram jotaat tuuti ci aafiyaam moom mi nga xamante ne ginnaaw plainte fédérale d'appel woolu woon nañ ko ngir déglu ko ci mbiri diffamation association de malfaiteurs ak diffusion de fausses nouvelles moom mi lee nag niki démb sant na yàlla mbooleem yéene kaay ko doon jàppal tànk ñi ñu waral jàppal tànk ci askan wi bëri na lool bokk na ci dëkk ci bërëb yi nga yéene kaay xëy ñoo jox xibaar gu tiis ne démb ca Parcelles Assainies unité 15 ab bâtiment nag moo wàcc ci ab njaboot ba ñaari nit mujjee ca ñàkk seen bakkan lee nekk mbir mu doy waar ci yéene kaay bi maire ba di Chérif Jamil Sané moo ngi cee xamal ne jamono ji nag ca Parcelles Assainies ga mu jiite téeméer ak ñeent fukk ak juróomi bâtiment jot nañ ko faa saytu lim ko xam ne bâtiment yi ne bâtiment yu màgget la wax nañ ña fa dëkk ñu jógee fa waaye ñoom itam ñàkk dëkkuwaay moo leen tere jóge ca bërëb yooyu lée vox populi xëy joxewaat xibaar bi ne ñaari soxna am juróom-ñeent fukki at ak ñaar ak ko am juróom benn ñeent ñoom ñoom ñaar ñii nag ñoo ñàkk seen bakkan ci bâtiment boobule ci dal boobule nga xamante ne moo waye ci njaboot wa mu nekk tiis woo xamante ne moo dal ci askanu Parcelles Assainies ak li ko wër li wër mbirib siiw biiti ak Ousmane Sonko ak Adji Sarr kaay ñoo ngi cokki-cokki de l'exclusive yéene kaay mu ngi ñuy xëy di wax naan moom Adji Sarr ak Ousmane Sonko nag seen ndaje bu fukki fan ak juróom benn ci wéeru mais gi ñu jëgmal kaay ñoo ngay waaj bu baax a baax ndax ñoom nee nañ ci yéene kaay mi nag duñu ko mu sedd lépp lu ñu laaj daa nañ ko ci def ki laajoom meerum Ndakaaru ba ci jox ko di ji liggéey wu am solo ba muy def ndax niki démb moom maire bu ndakaaru jiite na préforum bu ñu jagleel wàllum emploi waaye itam ñungal bu baax nekk-nekk jigéen ñi ñu ne forum mondial bi leen naka démb door nañ ko ca grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose moom Barthélémy Dias moo ko daal di jiite bés bi la jour fa la ñuy desandi ne économie li am solo ba tax na Jal Diop moom moo nekk capitale de l' économie sociale et solidarité ñu ne ñu nag ci waxtu ñu toll nii réew mi moo ngi xool nan la ñuy gën a nekkin jigéen ci askan wi nag waaye nee nañ mbir ma am na fu mu tàggatémbe ñi tàggatémbe dëgg-dëgg mooy juróom-ñeenti nit yi ñu jàppoon ci mbiri cocktail molotov ñu ne ginnaaw ñoo ñi leen ñu jàpp nag am na ñeneen juróom-ñaar yi nga xamante ne jamono ji itam ñoo ngi leen di wax naan ñoom ñi leen nag li ñu leen di mooy trouble à l'ordre public waaye itam jéem a taal ay édifice public te lii la ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril gu ñu génn libération yi ne kay xëy ñoo wax naan niki temb kañ doyen des juges daal dinay jël juróom-ñeenti mandat de dépôt daal koy jagleel juróom-ñeenti nit yi nga xamante ne ñoom lañu jote a jàpp ci mbiri cocktail molotov boobu mbiri cocktail molotov bu ñuy jot a wax te Awa Diop mi nga xamante ne moom la ñu jokkoor bi baaraamatuuma ni moom ak i ñu dem 100 mètres te noonu nañ faa yàgg lool ki a yàgg ci kaso yi Sénégal mooy Pierre mi nga xamante ni moom la ñu wax ne preuve yi gis yëpp ci boobu si Ba moom lañ ci jokkoor bi baaraama tuuma yéen kay bi xëy ñëw wax naan ni ki démb bu Thiès nag daal dinañ koy jokkoor bi ne mbir yi boom lañ ko toppee te ci fàttali moom mi lay Pierre John nag moom mi lay moo doon sàqut ci ab interview ne ne de mort dañ ko war a del ci Sénégal ku boom ñu boom la ndax moom bi nag néew Awa Ba na ci yi nga xamante ne ñoom ñoo ko njëkk a gis ki gis kaawu Série A jamono ji di Boulaye Dia ni ngi démb gën naa wone boppam moom attaquant bu Salernitana ci match bi doon dox diggante clubam ak Fiorentina moom sénégalais bi nag ñetti bal la fa jot a dugal ba tax jamono ji nag moom Boulaye gën naa yéeg bu baax baax ci classement meilleur buteur ci championnat bi Italie nekk mooy nancoo Sadio Mané gone bambale bi ndax yéen a kaay moo xëy wax naan naka démb nag moom Sadio Mané jot na xibaar ne entraîneur am di Thomas Tuchel ko gis ci club ba ba tax na niki déwén nag te joueurs yi ñu ne dañuy war a jéggi club ba moom Sadio Mané jël nañ teg ko ci liste ngir rek ko bëgg a jënd mën loo ko dem jëli jamaïcain jëli na combat bu neex amateur yi mooy kan diggante rëg-rëg bu caaro yi ak bombardier yéen a kaay bi xëy ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai mooy Forza ak Franc yéen kaay bi sunu lam mu ngi ñu xëy di wax naan juróom-ñaari fan ci weeru mai ñoom ñaar nag dañ def jàkkaarloo bu am solo looloo tax sax mbërum njaago bi di Franc ni ki démb nag na ci Ndakaaru ma gisee ci le peuple quotidien yéen kaay bi xëy ñoo wax naan borom di kan le premier magistrat de la ville de Guédiawaye di moom bu nekkee dëgg la narul gët ci moom lay laxi la laa yéenekaay bi ne moom Ahmed Aidara dafa daj ak jabar ja ñaareel ba di Kaja Caam ci xuloo boobule moom soxna si nag bu muy dem këram ne day jëli bagaasam ngir génn kër ga ca l'hôpital dalal jàmm la mujjee yeewoo mais da ngay seet lii rek yéenekaay bi ne mbir mi yemul foofu ndax nee na jamono ji moom Ahmed Aidara waaw plainte nga koy yodd ci coups et blessure yéenekaay bi teg ca ne lii la nag suñ ko jotee confirmé boo mooyut mairie ga yore ca Guédiawaye moom Ahmed ba faw <laughs> lii de mooy l'arroseur l'arrosé man xaaral ma yéem a defee sax tëj fi yéen a kaay tàggu ba ëllëg